sant yàlla jam rek doy est-ce que doomu ma séeréer de naa fi wu meexi mi tam ni naam <laughs> euh, yow yaay suñu invité si suñu émission débat du jour hmm. nga nekk sëriñu Sénégal ñu yaakaar la torop parce que Sénégal depuis 2002 def na gëj na def loo xamante ne dara la ci euh, coupe du monde donc tey nga nekk suñu sëriñ ñu invité la di wax nga nga nuyu nga xamante ne ñoo lay seet dëgg la gannaaw bi ma sant yàlla di nuyu ñëpp koo xam ne nii Sénégal yi nga di fi yeewu mbaa nga nekk irascible nag ndax li nga wax nii lu am suuna la mm-hmm. ndax si gaynde yi si boppam bu gaynde demee ba nekk bukki loolu nekkatul gaynde bukki jàmm waaw xam nga lan mooy bukki déedéet songu ba pare doo finir mbarke ndongoloo <laughs> bu fekkee da songu ba pare doo finir bukki ngay doon waaw te ñun gaynde lañ soxla. gaynde day doon gaynde. te ma ñàkk sama dee laa wax. barke Baba Ndiri Ndiofior Mbadakhoune laa ñaar bés bu ngeen ma engagé ngeen xam ne lépp dëgg su ma comprendre daal maanaam yow suñ la engagé en tant que suñu sëriñu séeréer du ñu gis ay bukki mais ay ay ay gaynde lañ. gaynde pire lay doon. ñi ngeen doon engagé yépp ay bukki lañ. ñu ndax dañuy engagé xam nga bukki day som boo tiitee mu def la musiba. mais boo déggooree mu xam ne fu mu nekk lii du si gën mu na nar a def nga koy def. tef lay def génnam laa lay won ngelaw sax moo koy gën a gaaw seen gaynde nag man nag bu ma ñëwee ngay nekk gaynde njaay njaay ndeysaan gaynde njaay njaay ndeysaan gaynde njaay jaata njaay ah. fal muuri bul malaal ah. falaati muuri ah. gaynde njaay àll borom daaneel na <laughs> waa léegi tey jii ñu la doon laaj rek comme bi nga xoolee tuuti ci xam affaire bi xaw na des tuuti mais yow yaakaar naa ne xam nga aw nga am nga loo xaw a gis sax ci combat bi lan lay doon. bi ma xoolee daa mën nañ am yaakaar. bi ma xoolee. si samay maam faxul fuufa. gis naa ne daal di ngeen sori. si kaw nag ma engagé. dinañ sori. waaw. si kaw waaye nag bu fekkee da ngeen a jël baadoolo yooyu ñuy wax ay ñoomin pël xaw ma sambal xaw ma lu mu doon si. àll dama lay wax rek. ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñi ñoom butéel la ñuy waxal déet xaw ma ay njaago lañ xaw ma lu ñu doon ma ñàkk sama day laa wax nii ngeen leen di jaar nii si nii. du ñu sori daal kan nii ngeen di def donc ñu fat leen. ngeen war tëdd di seetaan nag si. kon pour ñu sori foog yow kese. mbarke njongoloor. nga bañ a ànd ak kenn. man rek. parce que loolu wóor na sëriñ. en tout cas bu ngeen ma engagé da ngeen may fay nag cachet lay doon ndax affaire yu état la. ku nekk xam ne état am na xaalis gouvernement lay doon. léegi dama lay laaj yow séeréer nga wala pël nga wala joolaa nga. man séeréer cent pour cent. séeréer. Sangoon Faye mooy sama maam. foo dëkk. Sangoon Faye mooy sama maam dama lay wax rek Birane Diouf di sama baay ma tudd Ngor sant Diouf jom naa di dugg ci loo xam ne nii damay buut buuti wala may dellu ginnaaw ana waa tout ana waa arrière arrière la te yàlla bu ñu arrière sax man du ma dugg ci lu may arrière. foo dëkk. man Mbaba Diri. Mbaba Diri fan la nekk ci Sénégal. ci Sénégal la ne noonu. <laughs> yoo xamoo Mbaba Diri yow nga ne la nekk. xam nga kon laa ñaar. déedéet. Mbada woon xam nga ko. déedéet Joof yow. déedéet dama <laughs> na xam naa Joof yow. sama juróom-ñaar sama juróom-ñaareelu maam ñu ngi Joof yow fii. mais Joof yow Sénégal la nekk dama lay laaj waaw wala déet. Sénégal la nekkee. waa léegi kon yow sénégalais la. cent pour cent. waa léegi pourquoi a fayee ko sénégalais. kuy xalam di si jaayu. déedéet ma xoolal gis nga. xam nga dama la njëkk laaj noo tudd. defal ndànk nga wax eh. ma. ne la foo dëkk nga ma si soxna si yow ak yow tey du ñu mënu yow ndax yow gis ne yow yow ndax yow fi nga nga journaliste di invité ay yow sa dañ lay LTV di fay. LTV ba yow nga bañ ma fay nga ko fan. sëñ bi dañuy barka bu ngeen ma jëlu leen dañuy recadrer waat débat parce que bul andi jukkoy séeréer dama ne la noo tudd nga wax ma ma ne la foo dëkk nga ne ma Diofior te man daal xaaral ma ñëw xooli mbokku pël wala mbokku joolaa parce que man séeréer yi jaaxal nañ ma xaalis rek jaam yooyu ngeen di xool te cere rek la siy jënd baadoo la yow pël bi moom boo ko indee di moo yàqu nga joolaa bi waxi na baax na yow du ma juboo ak yow mbokk yi mbokk yi ñu dem xooli ki nga xamante ne mooy suñu sëriñu pël bi daal dellu si waat si plateau